keroog rassemblement bi dénoncé euh, ngeen wax ay dérive euh, régime bi ak ay jafe-jafe yoo xam ne ne mekku nañ ci euh, tey ji qu'est-ce que vous cherchez réellement à parce que gis nañ ne vous avez mobilisé mbooloo mi bëri na trop non au delà au delà de chercher à mobiliser comme ni ko waxee la vivacité d'un parti politique meeting ci la bokk. comme on dit comme comme on dit comme on dit meeting yi day day day day tax suñu day tax c'est les leaders en personne comme Ousmane Sonko ak yenn ak yéen yëpp. Mhm. a jàkkaarloo jàkkaarloo population bi jàkkaarloo aussi les sympathisants mais surtout aussi jàpp jàkkaarloo ak ak ak mbooloo bi ak nit yi saafote ak ñoom. Mhm. waxtaan ak ñoom jël si ku nekk itam échange échange bi direct lay doon lay doon entre ñun ñëpp quoi. Ah. Ah, voilà yéen a doon dénoncer souvent euh, les manifestations ñu leen di interdiral euh, bi sax da ngeen araftu woon euh, yi. artu euh, ñi nga xam ne ñooy kilifa yi mais malgré ça le préfet il a autorisé tey ji amal ngeen seen meeting ni ngeen ko bëggee est-ce que seen avis ci autorités yi changé avec ça wala fi ngeen nekkoon ngeen di jàpp ba tey non xam nga xam nga comme ni nga ko waxee rek ñun suñuy avis di changé wala ñàkk changé ñun comme on dit, on est, on est des responsables, on est des, démo, des démocrates. Mhm. Alhamdulillah, le préfet a eu à autoriser, nous avons eu à l'autorisation aussi, nous avons autorisé tous les autres meetings. Comme ça, nous avons dire le programme, dans le programme, nous avons barré pour Askan, pour, pour, pour les sympathisants et tout le monde. Ah, justement, par rapport à ce programme à dérouler, euh, Souba aussi, il y aura des, des, des manifestations, nous allons prévoir un peu partout. Il y a un de Wurosogi, de que Frégan et Matam. Euh, est-ce que vous prévoyez quelque chose pour demain Oui, bien sûr, Inch'Allah, comme, comme dans, dans tout le Sénégal, en fait, dans tout le Sénégal. cas dans mm-hmm. les 46 départements yëpp incha allah on a prévu de faire des meetings des rassemblements et incha allah comme ni nga waxee loolu constitution moo ko may dans dans l'article 58 alinéa 1 dafa prévoir constitution dafa garantir garantir les partis politiques à pouvoir s'exprimer à pouvoir s'opposer mm-hmm. librement et pacifiquement kon incha comme comme comme ñu ñëpp dans tous les quatre départements on a prévu bu neex yàlla suñu borom comme awul sege fu